ngi nuyu Serigne Mamor mu jottali ko nuyoom boobu Serigne Moustapha ak bokki taalibe yi fi teew yëpp ak bokk yi fi teew yëpp te ñu àndoon ak moom ñu bokkoon liggéey bi ak bokki taalibe yi mu ne daanaka kàddu yi sëñ Seex yii xawee su jéem mën a jéem a dolli dara ñëpp dégg nañ ko te leer na nañ mat na sëkk nee na bi dara des yi nee dégg nañ ko ci nopp yi dégg nañ ko ci xol yi nee na kon mënuñu cee dolli dara xanaa rek kay jataay bii ak bis bii am na ci mbégte mu rëy ndax yéene ji mu yéene njabootu Seex Masamba gii ko liggéey nee na ni mu ci amee mu rëy fekk na yéene ju rëy moo ko jiitu yéene leen jëf ji lool nee na xolam sedd ji guy yaakaaram dolliku ci xelam gën a dal nee na sëñ Masamba moom nee na ñu tudd ko rek mu deg ko ci noppam nee doy na ko mbégte nena lol taxon na ci lu jitu jotaay bi mo defalon ko bisu boppam lepp don ko duggal ci liggey bi Serigne Touba nena lolou jitu won na te nanu bobu kilifa ma ngi fi waye mënatu ko wona muñ nena na mëntoon na ñàkk feeñal nag digganteem ak Cheikh Massamba loolu moo tax mu defaloon ko bis boobu bu mu ko defaloon. nee na kon waxi sëñ seex ji. kaddu yi sëñ seex yi. jërul dolli dara. xanaa dolli cant ak ngërëm rek. di seereel sëriñ Moustapha mi jiite kër gi ak doom yi ak rakk yi mu ko àndal ak bokki taalibe yi nee na mi ngi leen di seeral ne mi ngi leen di sant di leen gërëm di ko seeral rek Serigne Touba mi borom di leen seeral ne itam ñun ñëpp ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di seereel yeesal gu muy yeesal jaayanteem ak Serigne Touba di leen gën a seereel fas yéene fàttali sama laxasaay ko gën ko ak laxasaayam gën ko ànd ak yéen. sax dàkk ci jaamu yàlla. yàlla. ak liggéeyal sëriñ bi. na ma koy waxee sax. na moom nag ni mu koy waxee. sax dàkk ci jaamu yàlla. dañuy sax dàkk ci jaamu yàlla. liggéeyal ko sëriñ bi. nee na moom foofu rek la nekk. nee na mi ngi leen koy seeral yéen ñëpp. jërë ngeen jëf. nee na cant daa mënta sant waaye kon dana ko weesu. nee na sedd na guy ba Bassirou nee na ma sàmba na ma ko waxe woon keroog. nee na li mu doon ci Serigne bi dafa bari. nee day rakkam. di doomam. di ab taalibeem. ne jël léppam jeexal ko ci Serigne bi. nee na seeyal léppam ci sëriñ bi. jërëjëf Mamor Mamor. nee na loo santal boppam Serigne Moustapha ak Serigne Mamor ak seeni rak ak seeni doom yëpp. nee kon loolu nee li sëriñ bi wax yóbbaale na lépp. nee na ndigal daal des koo mënta ñàkk a jëfe waaye nu jeexale foofu kaddu gi. nee di ñaanal nag sëriñ bi mu yàgg fi lool nee na ñaanal sëriñ Moustapha itam nee mu yàgg fi lool nee ñu ànd ñu yàgg ànd liggéeyal sëñ Touba te daje ceeg tawfeex sëñ Touba. sëñ Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bass mu ñëw wax nu ko. nee bi Cheikh Sidi Mokhtar waxee Cheikh Bassirou mii mu ñëw wax nu ko. danoo ànd ba ci ñoom. nee danoo àndaat ba ci ñoom. ba ci sëriñ Moustapha ba ci sëriñ Moustapha mu yabal nu ci sëñ Maamoor nee ci sëñ Maamoor mii ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp nee ñu dem toog fa waxtaane fa yëpp waxtaane fa nuñ koy liggéeyee nee waxtaane fa nag nuñ koy liggéeyee ak pas-pas buñ ci am ak pas-pas buñ ciy am ak yéene juñ ciy am ak yéene juñ ciy am ba bañ juboo ci nee bañ juboo ci Cheikh Bass doog a dem. ne Cheikh Serigne Bassirou mii door dem. andil nu plan bi. andil nu plan bi. plan bii ñoo ko defar. ne plan bi ñoo ko defar. andil nu ko. andil nu ko. ñu ñu respecté ko nañ ko bindee woon ñu respecté nañ ko bindee woon. dara manqué wu ci dara manqué wu ci. ci suuf gi ci suuf gi. li ci dem. li ci dem. ak li dem ci kaw gi ak li dem ci kaw gi. soreewuñu soreewuñu. tableau baa ngi ci biir ci buntu bi tableau baa ngi ci buntu bi ku ko gis ku ko gis da xam li ci dem ci feer da nga xam ne li ci dem ci xeer ak li ci def ci feer ak li ci dem ci feer ak li ci ay feer feer yi gën a kawe yi gën a feer yi gën a kawe te gën a mag am na ci nee am na ci liggéey bi nag ne liggéey bi nag noonu lañ ko toppee ne loolu lañ ko toppee ñu doon ci jawrin ñu doon ci jawriñ sëriñ Fallu doon trésorier bi ko yor ne sëriñ Fallu doon trésorier bi ko yor moom it bëgg na ñu ñaanal ko nee na bëgg na it ñu ñaanal ko ndax ndax ndax lépp lu ñuy dénkaane moom lañ koy dénk lépp lu ñuy dénkaane rek moom lañ koy dénk ci wér gi ci wér gi ak maandu gi ak maandu gi mate na ko sëkk ne mate na ko sëkk sët yi yëpp ne sët yi yëpp biñ defee liggéey boobu biñ defee liggéey boobu bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ni bii ñu koy ubbi lañ fi doog a dox ubbi lañ fi doog a dox. ndax am ndax am kóolute. ndax am kóolute ak confiance. ak confiance ci ñi ñu dénk liggéey ci ñi ñu dénk liggéey bi. tey nag ñëpp ñëw nañu. tey nag Mbàkke ñëpp ñëw nañu. waaye nag seen loxo. waaye seen loxo. mësu cee jóg nee mësu cee jóg de. ndax ni ñu doon liggéeyee. ndax ni ñu doon liggéeyee. at mu ne. at mu ne. ñu laaj. kër yi danañu laaj kër yi. li li jëm ci liggéey bi ci liggéey bi. ñu joxe ko ñu joxe ko. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ñu liggéey ko ba at ma jeex. ba ci at mu mujj mii ba ci at mu mujj mii. am nañ juróom benn fukki million. am nañ juróom benn fukki million. mottalee ko liggéey bii mottalee ko liggéey bii. tegaat ca fanweeri million tegaat ca fanweeri million. Euh, muy muy muy muy muy muy photo yii fi ne. muy muy muy nag salon yii fi ne. kon sëriñ bi. ne kon daal sëriñ bi. nga ñaanal sët yi. nee nga ñaanal nag sët yi. ba ñu teg seen tànk fi ko seeni way jur ne ba ñu teg seen tànk fi ko seeni wayjur tegoon. te bañ caa soppi dara te bañ caa soppi dara. ki bëgg sëriñ Touba ki bëgg Serigne tuuba ak gëm ko ak gëm ko. bëgg Seex ma Samba bëgg ma Samba. ak gëm ko ak gëm ko. ñaanal nu ne ñaanal nu sax ci loolu sax ci loolu. dara bañ fee jóge benn bañ cee jóge benn yoon. nu it la. ne ñun tamit ñu ñaanal la. sa fan gudd lool foot nag gudd lool. li nga yéene lépp nga def ko li nga yéene lépp nga def ko. ba mu mat sëkk ba mu mat sëkk. dara bañ caa manqué dara bañ a manqué. xam nañu sa pasteef mais xam nañu nag sa pasteef. ak sa yéene ak sa yéene. wóor nañu ne. ne wóor nañu ni. su ko sunu borom dogalee su ko sunu borom dogalee. kenn ku ne da nga am da nga bëgg. ne kenn ku nekk ci ñun ñii di am loo bëgg. ndax ndax ndax ku ne yéene nga ko la mu am. ndax ku ne yéene nga ko la mu am. taalibe bu ne yéene nga ko mu am lu dul jeex. ne taalibe bu nekk yéene nga ko mu am lu dul jeex. kon ñaanal leen ko rek ne kon ñaanal leen ko ba loo song ba loo song rek ñu mën koo daaneel ñu mën koo daaneel. ñu ngi lay sant bu baax. ne daal ñu ngi lay sant bu baax a baax. Euh, màggal gii ñëw it nee na màggal gii ñëw it yal ci yàlla defal ndam nee na yal la ci yàlla defal ndam ndam lu rëy ndam lu rëy loo xam ne loo xam ni dana ci jóge dana ci jóge xam kan ay sëñ xam mooy sëñ